jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen comme nuñ koy defee saasu su ne ñu ngi fii nag ci Pikine seet si fi kenn koo xamante ni bokkul ci mbër yi nga xam ne dañ leen di présenté ci làmb moom présenté na boppam ba noppi ndax def na ay tàkkusaan def ko preuve yu bare bare bare def na ko ci bëre door waxtuma laa bëre simple bi nga xamante ni macha allah chaque jour yaa ngi ko fay gis muy ñëw di compétir gaa yëguguñu bi ne boo xam ne bi saison bi ji commencé ba léegi benn compétition boo xam ne gagné na ko waaye dem na ba demi final am na yoo xam ne quart final la toogee kooku nag dañuy bëgg waxtaan ak moom ndax làmb gëj nuñ koo gis ci interview waaye làmb gëjuñu koo gis ci bëre ñu namm ko loolu bëgg waxtaan ak moom tax wasaare làmb déplacé wu ñëw ba fii ci Pikine seet si ko muy l'an mille ñu gën ko xam ci Fallou Ndiaye mbër maa ngi lay nuyu. oui ñoo ngi sant rek seen jiili waaw ñoo ngi siyaar ñëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Joal ngi sama yaay bu baax a baax ñaanal sama yàlla xaare ko àjjana ak mboolem jullit di nuyu waa Pikine particulièrement di nuyu mbëri dëkk ginnaaw yëpp kaw ba nuyu mbëru Pikine yëpp di nuyu sama mbokk yi xam nga waa bi Bantamba bi xam nga di nuyu sama fan ci club ñu nekk Italie ñu nekk waa Joal ñu nekk ginnaaw raay di nuyu sama goro mère ami di nuyu mère Dieng comprendre nga di nuyu sama gars yi yëpp ñoom Abuja ñoom Ndeye Diop nuyu sama soxna ak tout tànk yi maa ngi leen di siyaar bu baax di nuyu Sénégal yëpp daal di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm. Eh. amin mbër mbër bi saison bi tëjee noo ko doon dundee. saison bu tëjee man nii laay joowee chaque jour ah, bu tëj ak bu tijj yëpp man moom chaque instant damay damay damay entraîné bu tëjee damay entraîné. saison bu tijjee du ma bàyyi lu ma damay continuer rek lu ma changer programme quoi waaw saison bu tijjee moom ak bu tijjee yëpp laa yemale. ni mbëri doon def am na ci ñoo xamante ne ñii Maroc lañ demoon ñii dem nañu itali ñii dem nañ États-Unis ñii dem nañ Espagne yow foo foo bi saison bi tëjee foo nekkoon. non man moom dew <laughs> dew ma woon fenn quoi man moom maa ngi woon diggante Zawal ak salle bi ak ginnaaw raay laa doon jaabante génn génn ma fii quoi. naa dem nag benn yoon mais sottiwul quoi xam nga affaire moom demande visa moom da ngay ñaan rek soo ñaanee suñ la mayee soo mënee dem nga dem soo la mayul nga toog noonu ñaan mayu ñu ma nag quoi looloo tax dem mooy amoon naa amoon naa yéene bi quoi. dem liggéey quoi yokk état bi. waaw dem yokk état bi waaw. parce que xam nga rek lii instant yi destin la quoi si ñun. suñ yeneen morom yi ñoo ngi liggéey leneen. ñun ñoo suivre làmb quoi. moo tax tout le temps rek dañ ca war a nekk. waaw noonu la demee. Hmm. bi daaw dafa mel ni gëj ngaa bëre de parce que ñaari at wala ñett at yoo xamante ni. non daaw laa bëriwul rek te daaw boo xoolee li tax bëree moom du man kese la dal quoi mbër yëpp la dal boo xoolee rek daaw programme yi dafa bëri woon Sénégal élection yeeg xam nga affaire yi dafa dafa xatoon quoi dati dati bëri wuñ ak nawet affaire yooyu na affaire yi dugalante looloo yàqoon làmb yi mais daaw jéeg moom bëri naa. daaw jéeg waaw Foruz laa mujjee daan jour combat ma seen ak Bombardier vingt waaw parce que vingt huit juillet deux mille dix huit waaw foog naa la woon mhm. xale bu weex nga jël ko am loo xamante ne wane nga wane nga ni doo moroomu benn xale <laughs> non xam nga rek non làmb la rek oh, ma maa ngi koy nuyu au passage di ko féliciter di ko encourager tamit waaw xam nga làmb moom làmb rek la ñun dañuy bëri rek ëppante expérience am na ci boo xoolee tamit mais boo xoolee tamit war nañoo bëri nag quoi parce que mbër la ba pare bu ma koy jël noonu daa prouvé bu ma koy jël noonu boobu daa fekk daa prouvé moom dafa jàpp ne daf may daan waaw tey man moom yàlla yàlla yàlla def na mu sama bopp daal damay entraîné tout le temps waaw noonu la demee yàlla may ma ndam si kawam boobu ba léegi nag aw ko combat quoi. <laughs> li ma jaaxal mooy du ma toog ba dékk benn xale micro. mu ne l'an bi laa soxla boobu daa mel ni moom xale yi li lay laaj boobu yow bokkoo ci parce que moom weex gi moom xam nañ ko ci yow. non du loolu sax c'est nga xam nga rek gars yi moom mbéy kuñ daan lañ bëgg waa mbër yi moom bu les kenn nax mbër boo gis ku mu daan la bëgg te man moom nangu ma ku ma daan. waaw sama daanee moom bañu ma ku ma daan quoi mais nangu ma ko tamit quoi loolu laa ma lu ma mën a waxee man. daan ma waaw moo am waaye yow boo sañoon daan rek nga waaw man bëgg ko Yaxya Diop di waxee daan rek la. voilà la demee quoi moom la moom laay bëgg di am quoi yàlla nag su ma mayee leneen ma jël quoi mais bëggu ko su ma ko mayee dina ma may lu ma bëggul loolu tax moo tax tout le temps rek dama ciy nekk nga fekk sax ma entraîné ba pare mais midi laay dugg si salle bi 11h <laughs> su ma juumul 11h laay dugg si. su ma jógee onze heures deux heures temps laa fi def yu intense yoo xamante ne su ma bàyyee lii rek dama jël leneen ma une heure treize heures jot ma dem ñibbi te laa koy kal dix-sept heures maa ngi salba su fekkee dañuy contact ma contact ak booy su fekkee dañuy physique ma physique su ma xëyee quatre heures du matin maa ngi géej xam nga loolu mbër yi koy def bariwul waaw géej gi soo fa duggoon tey jii quatre heures soo fa duggoon doo fa gis benn champion gars yi wax ay may entraîné ay doo si gis kenn booy jàng bëri rek nga fay gis. lu leer nañ laa lay wax nii. yaakaar ci làmb moo tax war ngeen fexe def émission boobu quoi maa ngi koy lancer appel. ngeen xëy benn 4 heures rek jaar si géej gi. xool yan champion la ñuy dajal champion ngeen di dajal quoi. doo leen gis kenn. bu garaaw la man man damay gis te site yi bëri nañ mais ma ma lancé naa leen ko appel ma may leen ko sax xam nga def leen ko benn jour jékki-jékki rek benn quatre heures du matin ngeen jékki-jékki rek benn lundi wala mardi rek ngeen di xaaral ngeen commencé caaro yi ba. mbàq ya doo leen gis picc. damay damay kon li nga wax nii day tax ma jékki-jékki rek sible benn mbër laaj ko ban heure ngay entraîné mu ne man quatre heures laa yow quatre heures ma xaar ko buntu këram du ma wax dara quatre heures ma xaar ko du ko yëg. day yeewu day yeewu day def noonu ci tàttees bi ngay jaar maanaam xam nga tey jii mbëru Pikine yi fii la ñuy entraîné Pikine mbëru géejewaay géejewaay da ngay commencé géejewaay fi ñuy entraîné ba fa ñuy yem doo dajeeg mbër soo ñëwee Pikine commencé Pikine ba fu mu ñëm doo dajeeg mbër 6 heures 7 heures ngay gis ay benn benn booy ñu ñëw di dugg ñu ñun instant yii bii dañuy dajeeg benn benn booy gars yi du ñu de moo tax combat combat yu bëgg a bàyyi mooy combat yi nga xam ne xam nga rek si si rajo yi lay taxawee quoi su ko defee xam nga rek nga dem jël sa benn état soo ñëwee daan tuut benn jël bu yomb xam nga yuuxu gars yi waxoon naa la ko mais soo dajeeg mbër bi entraîné moom du yomb si yow. moo tax yow sa combat mënul yomb. man moom su ma la wax lay dëgg rek sama combat du yomb moo tax ñi ma war a bëreel bëgg ñëw bëreeg man moo tax ñi ma war a bëreel moo tax sama làmb man xam naa ne sama làmb day difficile quoi man moom xam naa loolu instant moom maa ngi soog a comprendre loolu moo tax nag damay rafetal carrière bi rek moo ko naay salee ba nga xamante dinaa am woy bu ma fi bàyyi. comprendre nga su ko defee ma dem liggéey leneen ah. waaye ma jaaxal ci ci ci l'an 2000 mooy mbër bu njëkk mbëru simple du mën a dóor waaye fekk naa la stade euh, Demba Diop am na mbër classe bi gasto Mbengue tëggoon sama papa am na koo ci dóoroon bu daalu de prix bi rek nga ko ko bu waaj. dugg waas la mais xam nga lam moom xam nga làmb moom mooy li ma la wax léegi rek mooy li ma la wax man boo xoolee man liggéeyuma dara. instant bii nii damay entraîné rek. entraînement rek mooy sama liggéey moo tax tout le temps damaa war di def dara su ma boxul damaa war a dem defi physique ma def musculation su ma deful musculation damaa war contact mooy normal quoi pour man man leneen ma maa maa ci lu ma warul nekk looloo tax damaa normalement dama man damaa war a mun box a mun daw ab domino dama ko a mun dama war a mun bëre normalement quoi su jaaree yoon leneen lu ma si deful rek maanaam man soo ma gisee aw ma état rek. ndax maa war a sànni benn xeer quoi. parce que si jamono boobu may toog ki suivre jàng moo ngay jàngi quoi. intellectuel bi moo ngay dem di uti xam-xam. comprendre nga yow journaliste nga yaa ngi dem di xool koo jox sa micro pour mu wax man si jamono boobu dama war a fekk may liggéey quoi man loolu laa gëm. waaw man moom sama dund yëpp noonu laa koy dundee quoi lu ma war a def rek dama si nekk lu ma warul nekk moom kenn du ma si gis noonu laay dundee quoi. daaw saison bi bi mu tëjee bëriwul comme démb daaw année blanche nga def mais lutte simple bi ñaata euh, compétition nga ci jël. daaw daaw lu ma bëri simple bëriwul de man ren laa bëgg a bëri. daaw li nga bëri bëri. non daaw boo xoolee dama doon jékki-jékki rek dem. waaw boo xoo daaw. daaw ñaata laa moom ñaata laa mooy mën bëri mun naa ko compter de daaw. waaw. mat na six. non non ay trois quatre normalement foog naa ñaari demi-finale laa am. comprendre ma daal daaw daal mbapatuma lu bëri quoi non ren moom jël nga décision mbapat parce que ba tey bi nga duggee ci compétition yi ba léegi ñëw nga ci 10 millions yi. ñëw nga gaal gi ñëw nga Adrien Senghor. waaw dix millions laa njëkk a bëri jour laa njëkk a bëri. waaw arbitre bi disqualifié wu ma quoi maa ngi maa ngi jaay ñoo doon dañ ma baare quoi. waaw dañ ma baare parce que da génnee par point. point waaw dañ ma baare. après laa dem gaal génn foofu demi final. ku la génne woon Boy Faye. Boy Faye waaw. Boy Faye moo ma génne nga xam nga rek nu mu demee la quoi. ah waaw. mu demee mooy la. jarul la jarul wax. maa moom daa am fu ñu jaar. Boy Faye waaw. ngeen jaar. connexion booy. Uh-huh. comprendre nga ma uh-huh. yar ko. xam naa ci maa ci xam dara ginnaaw raay sa loxo lañ màggee. waaw mu non dama ko yar. waaw pas màggee sama loxo rek dama ko yar. di ko góomloo booy soo góomee sa bopp nekk mbër. waaw demal nga bëri ji demal nga bëri ji comprendre nga parce que yow bi nga yor ni war na lekk xaalis si làmb lu mu tuuti tuuti xam nga rek di ko encouragé en tant que sportif quoi. benn jour daaw jéeg la su ma juumul ñu dajee lañ dajee quart de mu ne moom mënul bëre man moom de moom moo ko wax de xam nga rajo laa waxee. maa ngi ànd ak sama benn gars bu tudd Jamil. daru ma ko woon wax sax si kii bi maa ngi ànd ak sama benn gars bu tudd Jamil quoi. gars bi nag ma bu ko may bëri la moom. may na ko non booy bi rek kii maa ko yar mënu maa bëri ak moom quoi mu ne ma may ma yow sama grand nga grand yow fàtte ma bi may jëlal ndékki moo ma ko wax de comprendre nga parce que moo doon moo fu may ndékkee moom moo doon jaay ndox su ma jaayee ndox ba pare dama koy may weccet bi pour mu am lu mu ndékkee quoi est-ce que comprendre nga xam nga kooku noonu pour nga bëri moom day xaw a difficile sa yaram du la ko may quoi su dee gor nga man boog man mais man maa gën a bañ mayante si mbir yi man may naa dëkk yow sax di bëri yow comme nii nii nii suñu dayoon mën naa bëri yow man loolu garaaw man parce man sport laay def quoi comprendre nga mais lu mu wax noonu moo tax mënu maa bëri moom ma bàyyi ko mu dem jour boobu caaka moo ko daan final su ma juumul cinq cent mille mu jox ma dix mille te bu ma man xam naa booy mu war a dajal booy bu ndaw la dajal daan ko finalu keroog bu ñu dajee nekkul daf maa war a fay bëri ma moom de. billaahi walaay talaay. daan daan bëri man naa bëree noonu. man damaa yem man damaa yemaree noonu man. man nit mu daanee noonu jël yomb yooyu ak koo mën a doon. mooy daan tas yaakaar. daan tas yaakaar ba final mu ma daanee noonu mënu yomb yooyu man du ko daanu. léegi moo la. est que comprendre non dara mel loo hmm. xam nga damay wax ne làmb la rek xam nga dama reetaan quoi parce que man loolu yàgg na maa arrivé. ci làmb man yooyu garaawul. parce que man lu nekk dund naa ko ci làmb. man man instant ngeen pare mu jël mu jël final bi. waaw mu jël final non man waxaatuma ko dara dama génn rek dem dégg naa ba ma demee ñibi. ñëw na fekk gars yi ma toog foofu mu naan nii nee na moom dafa am doole. Hmm. mais moom loolu moom la concerné. soo amee doole. moom la concerné na ko jaay ay moromam. comprendre mais man damay compétir. parce que comprendre te compétition nag lu nekk mun na see am. parce que comprendre nga parce que ñun ñun instant yi lamb simple mënatuñ see prouvé parce que ñun ñun daan booy fay duñ yóbbu fenn ñu ñu daan ci lamb simple ñoo ëpp ñoo ëpp booy fay tur téeméeri junni yoon ñu musul daanu lañ daan daan leen daanaat beneen génération musu ñoo daan ñu daanaat leen xam nga kooku bëri booy fay daan booy fay amalu ko ba njëriñ comprendre nga man foofu laa ko tegoon ba ma koy may fa laa ko tegoon mu bëggoon mu prouvé barke Serigne Touba mu ànd ak ay garga ñu koy influencé ay garga <laughs> non mais lamb la quoi garaaw. nekkul lim nekk booy garga mboose moo tax fan yi moom. moo loolu te moom garga la. loolu moom na nga wax dëgg bul fen comprendre moom après dafa ne daan na ma ñaari yoon. loolu la wax. te ma koy may moo ma saraxu man may ko. moom moo ko wax man waxuma ko de moom moo ma saraxu dina seetaan lii. ma may ko. ñu doye ma war maa fay daan ma ba pare na li ma jëlagul làmb moo tax. assez comprendre nga. na ko dégg moom su bëree bëree ko def te ñemewoo. da nga comprendre nga sport sportif boo gis muy progressé dafa am fit. da bëgg wax Boy Faye amul fit. non waxuma ne moom amul fit maanaam yu muy def lu mu def keroog affaire ragal la. affaire ragal la def. te da koy wane si mu dajeeg ay génération am. affaire ragal mooy lan comprendre mooy affaire ragal war a bëreel. bëreel ak moom. nga. bul sax jéem a tricher. waaw man mun naa ko defal lu nekk kañ dayo mu bëreeg man daan ma garaawul sport la man damay xam ne booy bi dafa gëm boppam daan lu mu bëgg. yaa ngi comprendre nga man dama daf may neex quoi parce que man man guerrier laa bëgg man parce que man damaa jàpp ne guerrier laa. booy bi daan jënd ndox ci yow. nga koy may wecc ak booy bi léegi duñ benn. yenn taay dama ko doon fàtte mu dab ma yónni benn booy ma jox ko. barki Serigne Touba. billaahi walaay taala sama akulaay taala lay wax nii. comprendre nga mais su soo demee bay jàmbu jàmbul rek mais bul bootu Garga Mbossé man sama adversaire la su ko neexee su ko naqaree sama adversaire la Garga Mbossé moo ma daan de mais ñi bëre Thiès fa la ma fekk déglu ma la mais ñi ko daan yëpp maa leen daan ñëpp ay Saalum Saalum ay Bébé Saalum ay ay ay super étoile ñëpp a ñëpp a ko daan man maa ko daan ñoo ñoo ñooñu ma la limal ñëpp a daan Garga Mbossé man Garga Mbossé mun xool booy fay su ma su fekkoon daf maa daan normal sax Garga Mbossé mënu maa raw si làmb sama adversaire la su ko neexee su ko naqaree su fekkee booy fay daa dem seen kër di ko raasal daal yi su ko defee yëpp Garga Mbossé sama adversaire la far force même su fekkoon damay bëri mbabat di daanu premier tour sans ñooñu samay adversaire la dañoo war a bëri far force ay Garga Mbossé ay Moussa Ndoye ay Sa Thiès ñooñu laa war a bëreel man bëree jiwuma mbabat parce que dama parce que mbëru mbabat laa de non bëri ji mbabat parce que man làmb mooy sama métier damaa dem pour compétir yi te affaire bi sama sama deret la nekk amour la. su ma neexoon def comme ñëpp comprendre mais man man maa bëgg bëre comprendre nga man maa bëgg bëre ñàkkuma lu ma liggéey parce que xale bu góor laa dara daluma. mais est-ce que naa l'an 2000 ci làmb daa am lu mu bëgg wax rek na ko wax waaye duma ma bëri. maa mun a dépassé dépassé ci làmb mooy lan mooy nga def loo xamante ne mbër bi defu ko. Garga Mbossé bëgg a wax def fi dara. Garga Mbossé man li ma def ci làmb da ko def. Garga Mbossé Moussa Ndoye la mujjee daan. Moussa Ndoye ñu daan doo mooy lan. yaa gis fii man sama génération yaa gis ku gis gën parmale sama génération amul. ñaata victoire nga def. maa ngi am victoire 3 défaites. kana la daan. moom moom Garga moom. waa Fass bi Forza. Mm-hmm. ak super jamono jël bu leerul boobu. waaw waaw tël boobu voilà voilà. boobu leerul. ba léegi kenn mënu laa wax ne nii la ma daanee mais xam nga ñun ay ay sportif lañ arbitre bi su joxee jël la rek dañ koy compter comme victoire mais moom nga xool ñi ko daan ak man ñi ma daan fa force dañoo war a bëre ñoom mais dañ may teggi nii lañ may def nii soo xoolee seen génération boobu kenn bëriwul sax man ñoom ñëpp. ñii lañ ñoom ñoom gaa yi rek gaa yi nekk ci làmb ji rek. jarul ngay Garga Mbossé ci la bokk man maa lay laaj. man maa la laaj ay ñoom ay tëngeej bi ay ama neex ay gars ay Sa Thiès dañoo war a bëri far force ay Yékini Junior ay Modou Anta force dañoo war a amul neexal. xam nga li ma jaaxal mooy en chaque fois dañuy wax ni Modou Anta diw ama neex diw ci mais l'an 2000 moom dañ koo isolé génnee ko mel ni moom amul licence lu waral lu man du ma joxe xaalis man amuma xaalis mooy joxe gars yi la leen jox ma joxul xaalis duñ la tudd man maa la wax lii amuma nijaay bu yor ay milliards. du ma gar xaalis comme du ma garde kooru Cheikh Kanté foog nga nekk ci benn buntu bureau gars yi gëleel suy dugg gis la nga ñuy daas ñuy tudd seen booy yi xam nga ma genre yooyu aw ma genre yooyu ah, amoo nijaayu mbër daal aw ma nijaayu bu am xaalis ba mbër buy buy xaalis ma yoroon sama cent mille damay dem lekk samay famille du ma ko tudd laamuñ looloo fi am daa am ay dil mais ñoom ñoo gën a xam li ñu war a wax mais duñ ko wax leneen la ñuy wax di dof dof lu ci kaw nit ñi moo tax émission làmb yëpp a dee kenn leen parce que da ngay wax ñu làmb da day dekkil yëpp moo tax da ngay da ngay seetaan làmb ñuy gërëm ay diw sa Espagne ay diw sa France ay borom Marseille ay borom États-Unis yow nga war a wax si làmb di wax ay borom États-Unis jaagaaloo ñaari mbër di bëri nga wax ay maa ngi nuyu diw sa États-Unis ay diw borom teraanga yi làmb ñaari mbër di bëri. lak ma defal ñoo moo tur gis naa ko Pape Gueye sama ngénte bi yow man maa bañ ñii maa leen jëppi. <laughs> ndeysaan l'an 2000 làmb làmb dafa doon loo xamante ni am na ci mbër yoo xam ne waruñoo suux ci làmb ku mel ni l'an 2000 boo duggee ñu gis cosaan gis aada gis lépp mbër ci yow macha allah te boo bëree mu neex te amul combat boo bëree ñu gis ci ragal sa combat yaa Garga bu njëkk ba ba ngeen di bëre Thiès bëri ngeen première dix minutes bi mu jeex. 14 minutes lañ bëri xaw ma 17 minutes. waaw mu soog ma mu soog ma dóor ma daanu. mu jeex mu jeex ngeen mi temps ñëwaat. waaw 14 mi mooy loolu ma la wax ni si deuxième temps bi muy waaye. 10 bis 10 bi mu jeex. ñu bëre ba mu jeex ñu bëriwaat 7 minutes xaw ma 14 secondes. Mm. mu soog maa dóor hypercule fii. coupeur mm. yi laa jël. waaw mu wàcc. comprendre nga noonu xam nga noonu la làmb di demee mais man sama làmb du niil sama làmb du niil soo ma dóoree ko du ma génn saako yi xalaatuma ko sax parce que man xam nga rek daa am luy daw sama yaram. mais combat boobu na damaa jàppoon ni bi ngay bëree Garga Mbossé daf laa fan xam la. te yow xamoo ko. du loolu Garga Mbossé dafa jàpp ne mënumaa daan hmm? dafa jàpp ne mënumaa daan lu leer laa lay wax nii te moom maa ngi koy dégg mu naan ba may seetaan mbapat boobu moom xale bu ndaw la day sóob maguma ko dara boo seetaanee suñu combat kalaaf bi nga xam ne ñaar ñii magantewuñu ay morom lañ du du xale comprendre su nekkee xale it man maguma ko. man jos daf maa mën a mag Garga Mbossé man ma mag Garga Mbossé loolu daa mën a nekk xanaa man damay dem di ñëwaat mbir nañ bàyyi nañ naturel xoolal nekk boobu dañoo bëgg diw boobu mag diw boobu laa nekk champion nekk mag terew laa nekk champion yi nga lu sa wërsëg di ko lekk comprendre nga moom yàgg na di seetaan mbabat mais daa ñëwul bëre mbabat ragal du ko bëre lu leer nañ laa la wax fii mbir yi ba dafa tapet dafa tapet tap waaw gisoon nu muy bëree xanaa te la li muy bëree dara baaxu si dara baaxu si dara baaxu si moo tax ñi koy daan di ko daan mbër bu bëri defet la na ñëw ñu bëri moo gën na ma may sama ramage parce que man damay waaye bàyyi bëri <laughs> parce que man lamb ji lamb ji instant yi comprendre du ma ko lamb lamb boo xam ne da ngay daan di arrière sport Sénégal kese la am ngay def say preuve di arrière ki deful ay preuve am raw la Sénégal kese la xew man am na am genre télé am na télé yoo xamante ne nii pour mu la ko fii mosuñu maa invité. lu ñoo xam. wasaare làmb de dañoo déplacé woo la woowaat la woowaat la déplacé wu ba ci saal bi fekk la fi. xam nga tey suñu genre yi xam nga lu tax suñ suñuy wax du neex ñun suñu wax dafa diis. ñun duñ dëggu waaw ñun duñ dunguru quoi. ñun dañoo gëm ne lu nit am yàlla ko may. lu mu ñàkk suñu borom dogale suñu borom la. ñun man loolu laa gëm loolu laay dund parce que man jaamu yàlla laa laamu benn affaire laa ko def boo xamante ne passe temps la rek après damay xooli leneen nekkuma si laamu pour. continuer si làmb de xalaatuma ko sax la moo sama programme. est-ce promoteur yi da nga jékki-jékki rek. promoteur woo la. téléphone bi sone mu ne damaa bëgg sa combat yaag di. waaw sama. Luc Nicolaï bëggoon na maa tegal combat. yàlla yàlla ko yàlla génn fu mu nekk te nañ ko bàyyi mu génn quoi tamit waaw nañ ko bàyyi mu génne parce que xam nga munoo di jàpp ñi nga xamante ne ni ñoo am njëriñ ci réew mi bàyyi ñi nga xam ne amuñu fi benn njëriñ ñuy tere na fii ñi ñu war a jàpp lan lañ jàpp. comprendre nga. nañ ko nañ ko bàyyi mu génn. nañ ko ñaanal tamit nañ ko bàyyi tamit quoi parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. bu ñu xool acteur de développement yi ñu leen di jàpp fu ñu jëm ñun. parce que laamu ji ay jeunes ñoo fi nekk am seen doole di entraîner pour bëre nañ leen bàyyi nañ bàyyi Luc Nicolaï wala ñu amaan ko sax mu fay mu génn mais jël ko làq ko jant bi noonu ban sens la am amul benn sens. xam nga ñoo ngi ñaanal ñoo ngi koy ñaanal tamit mu génn ak jàmm man mosuma tëgal làmb. mosuma mais amoon naa yaakaar mu tegal ma làmb quoi parce que comme làmb ji si kaw lay taxawee am na ku ma boole woon ak moom pour après mu tegal ma làmb ren. comprendre nga sama combat bi passé yéegi ni moo ko teg moo tax ba ma bëree maa foros moo tax ma làmb ji comprendre ma ko foog nga am branloo soo ko bëree. mais yow yaa ngi ci bëre simple yi yow nekkal ci bëre bi rek bu fii doxul fii dox. xam nga tey jii man bëre mun naa la wax lu ma si def lu ma si def si si si temps. dootuma ko si def xalaatuma ko sax programme ma ko. boo xoolee ren jii li tax ma bëgg a bëri ji nii li tax ma bëgg a bëri simple ma toog un an bëriwuma di dugg si deuxième année bi xam nga saison yàgg naa ubbi gisoo ma ma bëri jàpp ma ne dina am combat quoi xalaatuma ko te yenn yi am na combat yoo xam ne moom du ma ko bëri moom. am na combat yoo xamante ne moom du ko bëri jaruma la comme yi comme yee comprendre nga balaa caa ma dem compétir yi xam nga. réflexion bi dina des en même temps di nga gën a am amuuru entraîné mais sooy entraîné te defoo dara tam nga découragé loolu moo dugal si bëre simple mais nekkul pour bëgg a daan kii wala ki wala kii parce que man jàpp naa li ma def ci bëre simple mënatuma def lu ko gën a lu ko gën a ngand ci bëre simple. daan naan loolu laa jàpp quoi. mais moo tax damay bëri nii rek pour bëri. yenn saa yi gars yi dañu lay gis naan ma bëri woo tey mais du loolu sama xel bi moo si nekk xam nga affaire fa nga bëgg a avancer mu mun laa jaral yenn yi. mais keroog bi nga ñëwee Adrien Senghor bi caaka fay jël bi nga ñëwee ma gis la nee naa l'an 2000 na tey. non man damay entraîné damay entraîné damay entraîné tout le temps sama xel su nekkee si làmb ji rek damay bëri xam nga làmb affaire kii la affaire ndoxtu la da ngay jéggee sa yow da ngay am envie quoi keroog dama amoon envie bëri. loolu loolu moom ma daal keroog dama dugg ba si làmb bi sama sa sama sama sama siritu làmb bi jóg ma envie bëre. ma na yàlla boo xoolee caaka loolu tax sax mu daal ma parce que bu ma koy jëli daf man nag <laughs> waaw la nag quoi moom it booy baax la. wax na ma wax bu rafet ci yow. nee na bi nee na daf na daf laa fan. idoolam nga daf laa bëgg. borom baax la xam nga mos naa koo daan terrain mos naa koo daan stade mais jour damaa rus. ndax hmm. dama ko daan ba pare mu ne ma yaay sama mbër. affaire yooyu quoi te xam nga góor bu nekk góor la waaw moo tax maa ngi koy ñaanal carrière am yàlla bu ko benn mbër gën carrière quoi parce que xam nga ku la bëgg rek da ko war a bëgg parce que adduna bi fii noonu la quoi te moom champion la ni mu commencé di bëree ren jii moom su ko continuer waaw ma ne du de waaye du bëri parce que bëri bu assuré lay bëri sama adversaire la nag mais maa ngi koy ñaanal jàmm quoi. moom caaka seetlu naa ci moom lenn ba maag sëñ Bas waxtaanee nañ ko boo ko joxoon man mii sax buñ sifflee respect bu bu garaaw lay jox mbër mi jàpp ko bëreeg moom. loolu loolu lu mu commencé lu mu commencé fan yii la ay temps doo doon bëri bëri kii yooyu bëri xale la doon bëri quoi mais foog naa daa commencé mature xam nga loolu tamit dafa baax si sportif sooy yéeg sooy dem di màgg sa xel dafa war a màgg ak sa bëri mais man su ma ko doon conseillé dama ko naan li ngay bëree nii bul ko yokk bul ko wàññi yokkal entraînement yi rek taxaw. téye bëri boobu waaw téye bëri boobu parce que loolu mun na si am nekk parce que bëri bi dafa mënuñoo waxtaan ba jeex te mënuñu laa wax sa relation ak mbëru Pikine yi. non man amu benn problème ak benn mbër. benn mbër buy dund ci kaw suuf mbëru Pikine ak mbëru Géejawaay ak mbëru Parcelles ak man ñoom ñëpp ay sportif laa leen jàppee man du ma dund ay affaire bëgg kii bañ kee man du ma dund affaire juif yooyu man du ma dund parce que loolu man maa jàpp na jullit laa quoi te am na yoo xamante ne nekkul jikko jullit man ku ma gis rek yéene naa la jàmm ko munti doon mais ñoo xamante ne ñoom nga ñoom ngay gën a dundal ñoom ngay gën a gis ku si mel ni ngeer bu sab waaw ngeer moom yan saa yi daf may woo sax téléphone wóor na yàlla ak guy gi guy gi moom sama waay la sama gaayen keus la guy gi xam nga di ñaanal jabaram moom su ma sañoon na nekk raare saaram balaa moo <laughs> day bàyyi ba jool xam nga ndax sama nit la quoi moom daf maa bëgg bëgg sama soxna bëgg sama waa kër même su xamee mu bëgg na ma sax moom dalay bëgg. est-ce que comprendre nga te man defal gisuma lan laa ko defal quoi guy gi man gisuma lan loo xamante ne rek dafal naa ko moo tax maa ngi koy ñaanal bi fu mu bëgg a na fa yegg balaa moo bàyyi bëri daal yàlla nekk roi des arènes fu mu ko mën jëlee nag baax na na nekk roi des rek mu daan nag baax na na nekk roi des arènes rek voilà waaw guy gi moom sama gaañ la quoi. waaw ñu lay jaajëfal li ñu amoon ci waxtu jot na. ah jeex na waaw mais ñoo ñoo ngi nuyu seen seen site bi wasaare lamb ma ngi leen di suivre par fajar bi su ma jegee entraînement ba julli ba pare dama leen di dama leen di suivre maa ngi xool keroog ngeen invité booy waa parcelle boobu mburu mbapat boobu. ëbbali ëbbali waaw. tey rek maa ngi koy suivre maa ngi leen di seetaan bu baax koy teg si yoon quoi mais yenn saa yi da ngay si mbërum mbapat yi yenn saa yi da nga naan pakala fekk du pakala quoi <laughs> ba sànni la xeer boobu del laajte del laajte xam nga gars yi dañuy waaw mais maa ngi nuyu sama fan si yëpp fu ñu munti nekk sama gars yi nekk Italie ñoom Maam Cheikh ñoom Lamine Ndiaye xam nga ñoom Lamine Faye xam nga ñoom Assane Mbaye ñoom Mor Ndiaye ñoom ñëpp ñoom Babacar Sidibé sama gars yëpp maa ngi leen di béyee ñu nekk Italie ñu nekk Amérique xam nga ñoom Pape Gueye xam nga gaa yëpp maa ngi leen di siyaar di leen ñaanal jaamu tamit di ñaanal sama waa dëkk waa waa Joal sama yaay sama rakk bu jigéen sama sama sama sama sama doomu maam yi waa bitik ba famille sama booy étudiant yi ñoom dong sama gaa yi xam nga ñoom Maodo gaa yëpp maa ngi leen di bégee di leen bigëb xam nga di ñaanal sama gaa yi waa Ginaara ñoom Jamil ñoom Abujo ñoom Aara ñoom Lin ñoom Alaaji Ndaw xam nga ñoom Lilia sama gaa yi ñoom Cheikh ñ ñoom sama gaa yëpp ñëpp maa ngi leen di bëggee ñoom Oussou Bébé ak sama boy yi nekk Joal ñoom Martin gars yëpp maa ngi leen di bëggee yi ñoo koy gërëm a baax maa di ñaanal man su ma amee combat daf may jàppale te mooy may xaalis comprendre nga na yàlla te bëggul kenn yëg ko dama koy wari sax pour nga xamante ne da ngay jël rek di beer rek daas xam nga moo tax maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ñi may ñaanal yëpp aussi maa ngi leen di ñaanal ñëpp du ma wax kenn nag fu mu dëkk ñoom mais fu rek maa ngi lay ñaanal quoi. ñu dëkk Joal Fadiouth waa waa Joof xam nga ak waa ak waa comment dirais waa Kaolack maa ngi leen di siyaar bu baax a baax maa ngi ñëpp jàmm daal di bége ñëpp sama booy Mortala waa Sila Sila yi maa ngi ñaanal ñoom Fallou ñoom Mortala xam nga. ñoom ñëpp fan ci club bi yëpp maa ngi leen di béggee di ñaanal ñëpp jàmm di wax mbëru ginnaaw raay yi mañ booloo nekk benn quoi parce que suñ booloo ginnaaw raay benn écurie la war a am warul am ñaari maa ngi leen ci lancé appel ñëpp ñu booloo gannaaw yi ñëw ñoom bàcc ceeraas affaire yooyu ñëw ñu jàppale booy booy yu nekk ay champion parce que xëj na fa quoi waaw maa ngi ñaanal ñëpp jàmm. jërëjëf l'an 2000 wax ji rafet na loolu macha allah tey tegu na fi mu war a tegu. li mu wax ci mbëru ginnaaw raay nag mbooloo mooy boole mooy doole tey it comme seen mag la mu wax loolu fexe leen gisanteeg moom mu boole defar lépp loo xamante ni day rafetal làmb tey day rafetal deru ginnaaw raay mbokk noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci xew-xewu làmb ak beneen daanaan jërë ngeen jëf.